yanquluuna danañu toxal ilayhim jëme ci ñoom aljarasima microbia yusbixoona danañu xëy maruda di way tawat mislahum kem ñoom ba tey nee na élèves yi nga xam ne dañoo amee jàngoro yu bët mbaa jàngoro bu nekk ci deru yaram wi mën naa am ñu nuyonteeg seeni moroom joxante loxo rek fi saasay saasa daal di wàllu seen moroom yooyee jàngoro jooju ndax doomi jàngoro yi ñu ko wax microbe day bàyyikoo ci ñoom daal dem ci seen moroom yooyee ñuy nuyonteel su ko defee ñooñu mujj daal tawat ne ñoom rek ihtimaamul xukumati yittewoo gouvernement bi bi sixati ca wér yaram ba alhamati bi aji matale wala ñuy wax santé publique tax tamm dana yittewoo alxukumatu gouvernement bi bi sixati ca wér yaram ba alhamati bi aji matale tun si u dana sos wisaaratan ab ministère xaasatan bi aji jagoo bi sixati ci wér yaram wal ishaafi ak xeetale ñu koy wax secours alhammi bi aji matale taxawul dana diggale moom ministère boobu doonan tishaaril amraadi ci lu dul tasaaroog jàngoro yi tukkaa fifuhaa dana bërinteeg jàngoro yooyu la daa wujjoo di haa fa seenug am li ci ëpp gouvernement bu ne dana jëm la man ci mbooloo mi am wéru yaram ni mu koy defee mooy day sos benn ministère boo xam ne da koy féetale wéru yaram nga xam ne ministère ba dana farlu ci yaar jàngoro bañ a tasaaroo ak it ba tasaaroo mu taxaw temm ci bëreeg moom xeex ko ba jële ko xadamun tishaaril amradi ñàkk tasaaroog tawat ya li koy taxaw la ngir na diggale wisaaratu sixati ministèru santé doonan tishaaril amradi ci lu dul tasaaroog tawat ya xaala doona nàngam mooy aay rek mooy teeloo laa am tafridu dana farataal dana imposé xalal baa'ihina ci jaaykat yi taqdima shahaadaati wane seeni certificat a sixiyet yey médical wala yey ko jug santeer maanaam daal bu ñu ne a shahaadatu a sixiyatu rek mooy certificat de bonne santé mais taqdima shahadati présenté seeni certificat a sixiyet yee ko jóg wéru yaram maanaam bu gouvernement bi bañee jàngoro yi tasaaroo day imposé day farataal jaaykat yi kenn ku ne kenn ku ne bala ñoo nangu nga jaay daal da ngay wane këyit wane ne yow mi amewoo jenn jàngoro joo mën a wàll kenn faaw nga joxe certificat bu bonne santé tursilu dana yebal al atibaa ay médecin ilal mu assasaati jëm ci établissement yi al ammati yi public wa xusuusan rawante naag al madaarisa école ya ba tey ministère boobu day jël ay médecin di leen yebal ci mboolem këri gouvernement bi nga xam ne ñépp ko bokk rawante na daara yi yafrisu dana ber ak tabibu médecin ba almusaabina ñañ jot ci jàngoro yam naahum dana leen aaye min duxoolil madrasati ci dugg école ba ya amuruhum dana leen digal bi mu daawaati ajsaamihim ci fajtal seen yaram laa yoxoo doona duñu dellu si ilal madrasati jëm ci école ba illaa bi idni tabibi ndara ci ndigalul médecin ba nee na ministère boobu amee wàll wér yaram da yebal ay médecin ci bërëb yi nga xam ne gouvernement ko yilif mel ne école yi médecin yi bi ñu demee dañuy xool ko amee jàngoro ñu ber la ne la yow demal faju ji duñ nangu sax bu dee kuy jàng mu ñëwaat école te fajul ba wér day faju ba wér door a ñëwaat ba docteur bi seet ko ne ko mën ngaa dellu si mu door a dellu si bëgg loolu dañuy bañ mu ñëwaat di wàlle jàngoroom tax tam dana yittewoo wisaaratu sixati ministère santé bi nadaafatil buyooti ci setu kër ya tursilu dana yebal muraaqibiina way contrôler li yetta ak kadoo ngir ñu wóorlu min nazafatil mataabixi ci setuk toggukaay ya wal maraxidi ak wanag ya ta'muru dana digal asxaabal ahwaadi waroom bassin yi wal basaatiin ak sardin yi bi taj fiifil mustanqaxaati ci wowal taataayu ndox yi wa bi wadahi samaki ak ci tegjën ya fil ahwaadi ca bassin ya kay laa taxluqa ngir ñu bañ a créer ngir ñu bañ a sàkk jaraasiimal malaria micro bi sibru nee na ministère bi amee santé da yittewoo lool kër yi set da yebal sax ay ndaw yoo xam ne ñuy wóorlu ne fi ñi toggee set na wanag itam set na ku am lu mel ne mbalka wala bassin lañ koy tuddee wala xeet sardin yi ñu wax la ne la fu am ndox fu ne rek nañ ko wal ba ndox du fa taa ndax bu ndox yi taayee day tax yooyu bare bu yooyu bare nag daal mën a andi lu ñuy wax jàngoroy sibro dañ leen digal ba tey ñu fab jën yi teg leen ci bassin yi ndax bañ loolu indi micro bi sibro yaf xasu dana seet dana wisit al muraqiboona way contrôle yi ñuy contrôler daañu seet almaakolaat ya ñuy lekk kay yata ak doo ngir ñu wóorlu min xulu wi xaaj seenu gu wéet seenu set wecc minal jaraasi mi ci ay xeeti microbe yaa amuroona lañu digal yaa amuroona albaaihina way jaay ña bi xinsil maakolaati ci sàmm ya ñuy lekk fil bar fil baradaati ci frigidaire yi wala frigo yi day am ñu nguur gi sàkk ne leen dee leen seet yi doomi aadama yi lekk ndax dañuy bañ yi ñuy lekk am ay microbe te yëguñu ko bu ko defee ñooñu ñooy gëstu ba xam ne yi ñuy lekk moom amul xeeti microbe yi dañuy wax jaaykat yi ne leen li ngeen di jaay tañ koy lekk dee leen ko def ci béréb yu sedd yi mel ne frigo mbaa lu ni mel ni frigidaire ndax loolu sàmm ko ba du yàqu mukaafaxatul amraadi bëranteeg xeeti jàngoro yi indama tantashiru saa yoo xam dafa tasaaroo al amraadu xeeti tawat yi tax tamm dana yittewoo wisaaratu sixati ministèru santé bi mukaafaxatiha ci bëreeg ñoom tu laqixu dana ñàkk al asixaa way wérña bil masli ci siram siram mooy li ñuy ñàkk alwaaq yi bay aji fekk tu xaziru dana aaye xalal marda ci way tawat ña attanaqula déplacé min makaanin bàyyi ko ci place ilaa axara jëm ci beneen tu wassihu dana tasaare al adwiyata ay garab wala xaqaaqiira ak i médicament xalal muxtaajiina ci way aajowooña al xaqaaqiir dañ koy wax ay garab mel ne mook mel ne mook al adwiya soriwuñu waaye daa mel dañ ëpp jëfandikoo addiya ci garab yi gën a tëppoonteeg jamono alxaqaaqiir nag mbooleem xeeti médicament yi rawante na yi nga xam ne taxu leen dëppoog jamono lool lool teew rek ñoo bokk ay maanaa bu ci nekk garab médicament lañ ci jublu daa wax ne bu jàngoro yi bare ministère bi day taxaw temm ci bëreeg jàngoro yooyu ndax ñu jóg fi ni mu koy defee mooy ñi nga xam ne jàngoro ji dalul leen te leen di ñàkk ñàkk yi nga xam ne mooy tax jàngoro di leen dal ba noppi nag ñi nga xam ne ñoo tawat moom mu ne leen da ngeen toog ci benn béréb ba wér waaye bu leen bàyyikoo fii dem feneen ndax bañ rek ñu wàll fañ jëm ko defee nag ñi aajowoo garab mu jox leen i garab ashuuru yajibu dana war an nu saaxi danu dimbale wisaarata sixati ministère santé fi muhimmatiha ci mission bi maanaam ci yitteem jooju fa nuxbiruha ten koy xibaar xan kullima walis lépp loo xam ne yusi day loro asihata santé alhamata bi publique wa nusaaxiduha ten koy dimbale xala mukaafaxatil amraadi ci bërenteeg xeet tawat yi wa xala xadamin tishaariha ak ci seenu ñàkk tasaaroo ana man axtarimu dana respecté al atibaa médecin ya wal mu maridaati ak infirmières yi li annahum ngir naka ñoom yu xafifoona dañu woyofal masaibal bashari musibay mbindeef yi waya soo noona te ñu ñoŋal xayaatahum seen dund dafa wax ne war nañu dimbale ministère bi toppatoo wér yaram ci liggéeyam boobu nga xam ne lu ñu gis te mën a indi lor ci wér yaram ñu yëgal ko ko ndax mu taxaw temm ci faj ko su ko defee itam lu koy dimbale moom ministère boobu ci bërinteeg xeeti jàngoro yi ba luñ tasaaroo mu ne man nag damay respecté médecin ak infirmière infirmière mooy bu dee jigéen maanaam almu maridu mooy infirmier bu dee góor almu marid almu maridatu mooy bu dee jigéen dañ koo jam fu jam maana fii nag almu maridaat maanaam mooy ki nga xam ne mooy toppatoo ka tawat niki di ko pikir ak di faj góom yaa ngi demee noonu médecin nag mooy ki nga xam ne moo am xam-xam bi nga xam ne moom li ci ëpp day seet bind garab ba ñu war a jënd waaye du moom ci boppam li ci ëpp mooy pikir mbaa dara infirmier moom mooy ki nga xam ne mooy toppatoo ka tawat di ko jox garab nañ ko ko war a joxe ñu ko waree pikir ñu pikir ko ak yu demee noonu mais nag man ñoo ñëpp laay normal di leen respect di leen respecté ñoo ñëpp ndax dañu dimbale mbindeef yi ci bu ñu tawatee di leen dimbale itam ba ñu wér te dund dund gu yàgg ñoo nag ci at taw siyan day njëkkee tam xiidun bi ayati munasabatin ana ci ban occasion amarat ku la leen digale idaaratul madrasati direction bu école bi bi talqihi ci ñakku xala atharin tishaari wabail xaydati ci saawos wala ci gannaaw tasaaroog woppi choléra alxayda daw biir moom la wax ne al kolira lañ koy wax kolira fil buldaani ca réew ya al mujaawirati aji sosaloog nun amarat naa digal nanu idaaratul madrasati direction bu école bi bi talqi ci ñakku didda xaadal wa bàyyi kontar bile mbas alfattaaki bi di ab gaañaakoon gannaaw bu ñu yëgee ne choléra am na ci réew yi nga xam ñoonu jege lool la direction bi école bi wax ne na gone yépp ñakku ñakk boo xam ne leen mën a aar ci choléra boobule awala nag zahabuka maha ixwatika ila markasi talqihi maha jumhuril atfaali wa rijaali wa nisaa fa tawajjahtu te ma jublu maha ixwati ànd ak samay mbokk ila ahadil marakisi jëm ci benn ci centre yi asihiyati sanitaire li talqihi ngir ñàkku didda hada shabahi contre ji li jëmm almuxiif yi aji ragalloo fa ida bi amti lu may ci man rek saa iru may aji dox bay na xaadalin ci diggante ab lim laa yu saa boobu def ko mën a takk minat talaamidati ci ay elew wal abaay ak ay baay wal ummahaati ak ay yaay mutawajjihina bir ngi ñooy jublu jamihan mboole sunu ila markasil ishaafi jëm ci santaru secours ba jëm ci centre ba ñu xeetalee ku loro li ma njëkk def nee na mooy ànd ak saay mbokk ñu jëm ca centre ba nga xam ne centre sanitaire la fa la ñu ñakkoo lu bëgg mu demee nag ñakku ndax yàlla musal nu ci choléra moomule ci li mu bett rek nee na ma mujj mbooloo mi bari lool nga xam ne ñu jëm foofu ci ay élèves ak ay baay ak yaay ay góor ak jigéen dañoo bari lool ñëpp rek jëm ci centre boobu nga xam ne fa la ñuy ñàkkoo wëllës yi la nga xam ne lafata wëlbati na maanaam attiré na nazar yi sama seet sama xool bi suuratin ci ak anam xaasatin kuy aji jagoo muy spécial in difaaxul atfaal yi mooy jiñug gone yi xabal kibaar yi njëkk mag ña wa tashmiruhum ak seenug wokk xan sawaahidihim wali seeni përëk ka annahum mel na ñoom daal saw fa yàquloona xasat nañoo lekk taxaaman aw ñam cheikh yéen wuy aji neex mu ne li wëlbati sama bët mënuma koo ñàkk a seetlu mooy gone yi ci seen bopp daana la ñoo gën a ñeme mbir mi dañoo weesu mag ñi daldi waaxu rekk wokk seeni përëg bëgg ñu ñëkk leen yu njëkkante kenn ku ne bëgg a njëkk a ñàkku ba mel ni daal dañ leen a woo ci aw ñam wu neex a neex ñu sawar ca ku ne bëgg ca ëppale sa moroom ne loolu daal seetlu na ko ci gone yi te mënu koo ñàkk seetlu taaniyan nag wusuluka ila markasi talxiix ak xawfuka ak at tashjih day bëgg wax na ba nga àggee ci centre ba ñuy ñàkkee ak na nga tiite ak la la encouragé ba nga ñëwee mujj ñàkkoo wa maa hiya déet moom illa daqaaiqun dara ay minute rek xataa wasaltu ba ma àgg ilal markas jëm ci centre ba as si xii bay sanitaire fa wajatu ma fekk annaa sa nit ña yetta daa faxoona ñuy ba ma xante amaamal baa bi ci kanam bunt ba fatamal lëkkanii te moom ma xawfun tiitaange garibun luy aji yéemu te xawfun moo di ak ragal minal ibrati ci jamuk pusa ba allati ba nga xam ne saw fa tax rusuha xasat na koo jam xasat na koo nuural al mu maridatu infirmière ba infirmière ba fii saaxidi ci sama përëg wa minal xumma ak ci tàngooru sibru wa allati ba nga xam ne saw fa tantaabu nii xalsat na maa jot min jarra it talqiihi ci sababus ñàkk gi mu ne amul lu may rek ay minutes yu néew ma daal di àgg ci fañee ñàkkoo gis nag nit ñi ñuy booxante ci bunt bi rek ku ne bëgg a njëkk a ñàkku ma yëg foofu nag tiitaange lu doy waar lu ma yéem a yéem ndax tiit naa ci pousse bi nga xam ne moom laa seen infirmière bi maanaam ki nga xam ne mooy ñakke tey jigéen mu yore ko di ko jam ci përëg yi nit ñi bu leen dee ñàkk daal na muy jamee pusa boobu loolu tiit naa ci la ca dolli ko nag mooy dama seetlu ne boo ñàkkoo gannaaw ba da nga yëg lu mel ni sibru ci sa yaram yooyu yaar daal lu ci nekk tiital na ma ni nga xam ne moom laa séene ñàkkkat bi di ko ñàkke nit ñi ak gannaaw boo ñàkkoo noppi la lay dal mel ni xeetu sibru waa xalsute ma tàmbali uqaddimu di jox dawriya sama tuur ilaa xëyri jëm ci kudul man nee na ma tàmbali rang bi su ma demee ba maa ci sës ma ragal jox keneen sa ne ko ne ko demal demal man daal deltu gannaaw ndax ragal laakin na axi waaye sama mbokk mi asaxira mi gone allësi mi nga xam ne màlla yoqat na al intizaara néggandiku ga ixtaraxa ñaaj na bëtt na alxaaji sa baras ba amaama tahdiidi shurti yi ci kanam xuppaateeg policier ba wa maddate mu tàllal yadda xoo loxoom lil mu marru dotti ñeel infirmière bi duuna xaw fi njul genn ragal a wajalin mbaa genn njàqare jaxale ni loolu nag moo ma def ax jalu may rus min naf si ci sama bopp sama rakk sama rakk ji moom nee na daa mel ne rang bu yàgg bi da ko soppi mu jekki-jekki rek ñaaj baras bi maanaam bëtt baras bi faaliwul policier bi nga xam ne mooy xuppaati naa e taxawal fee taxawal fee bu génn rang bi mu faaliwul lool daa daal di ñaaj rek daal di àgg tàllal loxoom kii ñakke mu daal di koy ñakk amul tiitaangi amul jàq loolu nag nee na moo tax ma rus man sama rakk daal bu defee nii man nag su ma su ma àgg joxee sama tuur keneen ndax ragal rek sama rakk moom defe nii loolu moo ma rusloo taalisan nag ak taqaddumu avancé ga maanaam jegeñ ga minal mu maridati ci infirmière bi ak ak talxiixu ñàkk ga ak ashukuru cant ga mu jeex li daaneel wax ji nag mooy mujj rek àgg ci kii ñàkkee mu ñàkk ko sant itam nag ca ba mu ñàkkoo ba noppi fatamal lëkkat nii te moom ma xamaasatun ak cawarte ñu koy wax cembarte mu xaribatun guy aji tumuraanke wa taqaddamtu te ma avancé minal mu maridati ci infirmière ba wa chammartu te ma wokk an saaxi ji wëlis sama përët fa masaxatu te fomp ko al mu maridatu infirmière bi bi sabxatil yuudi ci tentiru yóot tentiru yóot mooy li nga xam ne buñ dee bëgg a pikir mbaaw ñi bëgg a ñàkk moom la ñuy fompe fa ñuy bëgg a ñàkk mbaaw fa ñuy bëgg a pikir mool be maas rek sabxatu waaye man ngaa bind bi sibb xatil yóod ci teen tiiru yóod tentir bee tudd noonu yóod googule wala waxal set ni te mu jàmm bi ibratin ci ab pusa saxiratin bi aji ndawe fa shakartuhaa te ma sant ko wa xarajul te ma génn adhaku di ree min nafsi ci sama bopp xalaa xawfin ci tiitaange loo xam ne laa mu barira amul benn sabab la ko di ko ñeex nee na bi ma gisee sama rakk dina def noonu daal di gaaw ñekku dama daal di am cembarte goo xam ne cawarte goo xam ne jaaxal na ma ma daal di gaaw jege jigéen ñi nga xam ne mooy ñekkee wok saa përëg bu daal jël ñu wax tentiru yoot daal koy fompe fi mu war a ñekk daal ma ñekk fi saasa ci puso bu ndaw a ndaw ma sant ko daal di génn waaye boobu maa ngi ree saa bopp man daal xamal ma doon tiite nii tiitaange loo xam ne amut lu ko war a sabab wa baadama xasaltu gannaaw ba ma amee xalaa waraqatin ci aw kayit tusbitoo dana saxal talqihi sama ñàkk bil masli ci siram ba siram siram alwaaqi bay aji fekk xottu dellu naa ilal baytu jëm ci kër ga wa anaate man uraddidu maa ngi répété maa ngi wax ak waxaat naa alaa yëgal araxanaa yal na nafal allahu yàlla min charril amraadi ci ayu tawat ya alxabisati aji bon waxamaanaate mu aarnu min axtaarihaa ji seeni dansé innahu naka moom assamihu mooy aji dégg ja al mujibu ji aji wuy ñaan gannaaw bi ma joxee këy ji wane ne ñakku naa ñakk buy aar jàngoro ju doon jooju muy choléra foofu nag laa delloo ci kër ga di répété di wax ak waxaat naa yal nanu yàlla musul ci xeet tawat yu bon yooyu le aar nu ci danse yi tawat yooyu ndax moom ku baax la ku mën a wuy ñaan la almubaarayaatu ay compétition wala nga ne ay jongante arriya diyatu yu ko jóg sport yu nga dugg nag ci jongante sport yi aljamhiyaatu mbootaay yi arriyadiyatu an nga ne aljamhiyaatu club yi arriyadiyatu yi ko jóg sport tax tamm dana yittewoo alxukumatu gouvernement bi bir riyadati ci sport tunsiw dana sos laxaa ñeel sport daairatan ab cercle wala ab section xaasatan buy spécial fii wasaarati tarbiyati ci ministère éducation ci ministère éducation ministre bi am wàllu yar day fonk sport ba faaw dana am ab section boo xam ne da koy jagleel sport rek tatlubu dana sàkku mu fatti siyatu riyaadati inspection bu sport bi dana sàkku ilal madaris jëm ci école yi taalifal jamhiyaati sos ay club wala sos ay mbootaay ar riyaadiyat yi ko jóg sport dana am mu fattis mooy inspecteur liggéeyam nag ak lañ ko fal mooy mu fatti siyatu day am wàllu gu ñu féetale seet wàllu sport gi ñooñu nag ñooy sàkku ci école yi école bu ne jéem a sos club boo xam ne te yëngutu ci wàllu sport tax taaru dana tànn idaaratul madrasati direction bu école bi al mudir mooy directeur idaaratu nag mooy liggéeyam mbaa fa nga xam ne fa lay liggéeye ak ñam ko seqal dana tànn ahsanat talaamiz yi gën jaarafeeti élèves yi xuluxan ci jikko waa jitihaadan ak ci ak farlu taddu xam dana leen woo ilijtimaax jëm ci ab réunion xaamin buy général muy public yan tax yi boon danañu tànn fii asnaay yi ci biiram laj na tan benn comité lir riyaadati ñeel sport yan tax yi bu dana tànn ah daa ul lajnati membre yi comité ba raisan président lahum ñeel leen wa naiban lir raisi ak benn vice président nan nga ne wa naiban ak aji wuutu lir raisi ñeel président ba wa aminan li chéri ak benn secrétaire boo koy teqal nga ne wa amin ak ñu wóolu li chéri ñeel secret wa aminan li sun dooxi ak benn trésorier mooy ki nga xam ne mooy féetewoo wàllu li dugg ci alal maanaam bureau bi nga xam ne fi la directeur bi liggéeyee ci école bi ñoom ñooy seet élèves yi gën a baax jikko te amuk farlu ñu woo leen ñu def benn réunion boo xam ne ñëpp fay teew ca réunion boobee ca la ñuy tànn benn comité boo xam ne mooy toppatoo lu aju ci wàllu sport ci école bi bu ko defee membre yi comité boobee nag membre yi com comité boobee maanaam bu ñu tànnee ay membre yi comité bi toppatoo sport ci seen biir ñooy fal président mu jiite leen ak vice président nga xam ne foo kooku nekkul moo fay nekk ak benn secrétaire ak koo xam ne mooy doon trésorier bi moo yore lu aju ci wàllu alal ji amalul jamiyati liggéeyi association bi arriyadiyati bi ko jug sport tunazimu dana nose allajnatu comité ba arriyadiyatu bi ko jug sport si jillan ab liste bi asmail ahda yi ci turi membre yi tajmaxu dana dajale min xum ci ñoom istirakatin ay abonnement ay bokkaale muy ay abonnement chahriyat ñuy ko jóg weer aw usbuwaniyatan wala ñuy ko jóg semaine tashtari dana jënd bimaa ci la nga xam ne yatta jamaxu dana dajaloo la day xaa fa moom min darahima ci ay dërëm jami xamaa mboolem la nga xam ne tax taaj dana aajowoo ilahi jëm ci moom min adawaatin ci ay jumtukaay riyaadiyat ñi ko jóg sport misla kuraatil qadami mel ne kam bali football wa salati ak bali basket wa taairati ak yooyu volleyball wa taawilati ak yooyu tennis kama tashtari ni ki muy jënde shibakan ay mbaal lil kurati ak taairati ñeel ak kura ak taaira wa kurati taawilati ak kurati taawila nee na comité sportif bi nga xam ne moom la ñu sàkkoon day defar ab liste boo xam ne ku bokk ci association bi rek ñu bind sa tur mu am abonnement yoo xam ne ñu koy fay par weer wu ne mbaa par ay bis gu ne buñ joxee abonnement yooyu nag ci la ñuy jëndee li ñuy tewoo ci xeeti jumtukaayi sport yi moo xam day xeeti bu dee football bale ñi footballé wala bu dee basket wala bu dee kuratu taayira mbaa kuratu taawi la ñu wax volleyball ak handball ak ak bu dee tennis yëpp rek cotisation yooyu nga xam ne moom la ñuy dajale di ko fay weer wu ne mbaa ay bis gu ne buñ ko boolee ci lañuy jënd li ñuy téewoo ci jumtukaay yi mbiri sport ni ki yooyu mu tudd yépp ci xeeti bal wala lu ko nuru tu àllifu dina composé ba tey firaxan ay équipe mu naw waxat ni duñ xeetale tutxinu yooyu danañu xereñe daañu mën bu baax muxtalafal alxan bi wala nga ne muxtalifal alxan bi waaye muxtalaf lañu ëpp jëfandikoo way wu tey poy yi arriyadiyat yi ko jóg sport tuqasimu dana séddale itam laaxi bi luxbati suwari boma alwaxidati ma di menn ilaa xismayn jëm ci ñaari xaaj xismun xaaj xawjun bu foor bu am doole tu sa mihi ba du koy tudde al fariqa équipe ba al awal bi ajjëkk wala groupe bu jëkk ba waxis mun akub xaaj daañu fu ngi aji feebal bu doyee di tusamih boobu da koy tudde al fariqa attaniya ba tey nee na comité boobu nga xam ne mooy al lajna ar riyadiya mooy taxaw te mën ci former ay équipe yi wuute wuute mooy firaqan munawaatan équipe yoo xam dañuy man xeeti poy yi ñu def ci sport xeeti poy sport yëpp dañ koy man ko defee benn xeetu ba bu ne suwar yi ci nekk dañuy def ñaari xaaj am na xaaj boo xam ne mën na pom bu baax a baax muy xaaj ba foor moom la ñuy wax al fariq al awal xaaj bi ci des na nga xam taxulee na am doole feebal nañ ci wàllu pomooma ñoom la ñuy woy al fariq al tani al mubaarayaatu xeeti compétition yi wala xeeti joŋante yi yaddu xoo dana woo aminu sirri la jënati secrétaire comité ba arriyadiyati bi ko jox sport firaqal madarisi équipe bi école ya li mulaaxabati fariqi madrasatihi ngir foxak équipe bu école am école bu ne am na comité sportif mooy secrétaire comité boobu nag mooy invité équipe bi école ci des di leen kaay leen jonganteeg sama équipe bu école maanaam daal day invité école ci des ñu andi seeni équipe ñu jonganteeg équipe am moom yu jibu dana tontu itam xani daawaati walis invitation yi allati ya nga xam ne tuwajjahu def na leen jubale ilee jëm ci moom baada muwaafaqatil aada yi ci gannaaw d'accord membre yi am comité bi amee sport bi ab lim la ñu doon ñu tànn léegi nag secrétaire ba la wax ne ba tey